asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi tey jii ab xadis bu gat la leeral insha allahu taala di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal nu jàmm ak defal ko mboolem jullit xadis bi ni mu mooy an abi hurayrata radiyallahu anhu anna rajulan qaala linnabiyi sallallahu alayhi wa sallam awsini qaala laa taxdab fa raddada miraaran qaala laa taxdab rawaahu albuxaariyu xadis bi ñu ngi ko jëlee ci abu hurayra te na yàlla gërëm ko abu hurayra bokkoon ci saxaabay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ko yàlla gërëm mu wax ni benn waay benn waay ñëwoon na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama daa koy wax ni yow yonentab yàlla bi dama bëggoon nga dénk ma maanaam dama bëggoon nga conseiller ma dama bëggoon nga conseil ma conseil bii nag maanaam conseiller ma loo xam ni danaa ko mën a jàpp waaye it dana ma mën a jariñ àdduna jariñ ma àllaaxira kon mbokkum jullit déglul bu baax benn waaye ñëw na ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam di demandé ay conseil yoo xam ni dana ca jariñu àdduna ak àllaaxira nga xam ni yonente bi alayhi salaatu wasalaam daawul soofantal kenn képp ku ko masa laaj wax na la loo xam ne da nga ca jariñu àdduna ak alaaxira te ku ko déggit da nga ca jariñu àdduna ak alaaxira daawul soofantal kenn kon ñu déglu bu baax kii laaj ko ak lam koy tontu boroom xam-xam yi wax ni nag kii di ko laaj am na ñu wax ni abu dar daala am na ñu wax ni jaariya ibnu quddaama la ñaar ñi ñëpp nag kum ci doon ku ne ab saxaaba la yonente bi alayhi salaatu wasalaam mësta soofantal saxaaba yi bëggoon leen lool joxoon leen gëdda lool ci bu ñu bëggee xam seen diine waaye nag yonente bi alayhi salaatu salaam tontu ko ni ko laa taxdab bul mer bul mer la ko wax maanaam nanga moytu bépp sabab boo xam ni mooy tax nga mer mbokkum jullit lii la yonente bi alayhi salaatu salaam dénk waajoo ji nee na ko moytul bépp sabab boo xam ni mooy tax ngay mer waa ji nag dellu siwaat ay yoon ay yoon ay yoon di laaj yonent bi alayhi salaatu salaam même laaj yonent bi di ko tontu même tontu bi ni ko bul mer moytu lépp luy tax nga mer mbokkum jullit yonent bi alayhi salaatu salaam xam na bu baax ni mer mën naa dox diggante nit ki ak jaamu borom bi tabaraka wa taala mën naa dox nit diggante nit ki ak ay mbokkam moo tax mu wax ko wax bu gàtt te am solo bul mer ñi gën a bari ci doomu aadama yi nag suñu meree seen mbokkum jullit la ñuy njëkk a xalaat mooy yàq ab daram wala toog ci bërëb di wuññi ay ñaaw teefam ñi gën a bari ci ñun bu ñu meree nit lii mooy seen xalaat te yàlla wax ci nag artu gu mett métti yàlla wax ci alquran ni inna alladina yuhibbuna an tachia alfahishatu fi alladina amanu lahum adabun alimun fi dunya wal axira yàlla mu ni ña nga xam ne dañuy bëgg rek di wuññi ay ñaawteef ca ña gëm yàlla ñooñu am nañ mbugal mu metti àdduna ak allaaxira mbokkum jullit lii ko ko gën di def mooy ki mere doomu aadama ji toog ci béréb di yàq ab deram wala muy wuññi ay ñaawteefam moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci at déggam ci ak xamam mu ni ko moytul kon lépp loo xam ni mooy tax nga mer te it bi xam na ni képp ko mer seytaane day fees dell sab xol te seytaane li bëgg mooy nit ki du am jàmm digganteem ak ay mbokkam te nit ki du mën a jaamu yàlla comme na mu waree moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ni ko moytu lépp loo xam ni mooy tax nga mer waaye nag yonente bi alayhi salaatu wasalaam xam na ni mer mënut a ñàkk ci nit ki léegoo léeg moo tax mu tagg lool ña nga xam ni sunu meree mën a ànd ak seen maîtrise xam nga ni seytaane saa bu nit ki meree day fees dell ci xolam di ko waxloo ay ñaawteef di ko defloo ay ñaawteef yoo xam ne day tax borom bi jéppi ko ci day tax ay mbokkam jéppi ko ci moo tax yonent bi bëgg lool képp ko mer nga ànd ak sa maîtrise ànd ak sa dal mu tagg lool ñooñu ci xadis boo xam ne abu hurayra ci lañ ko jëlee mu wax ni laysa shadidu bi sur'a innama shadidu man yamliku nafsahu inda alghadab yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni jàmbaar dëgg day nekkul koo xam ni moo man ñëpp moo daan ñëpp waaye nag jàmbaar dëgg mooy ka nga xam ni su meree mën moom boppam maanaam mën a maîtriser bu baax la muy wax ak la muy def kon ku mer mbokkum jullit na nga maîtriser bu baax say kaddu xam bu baax la ngay wax ba doo ànd ak say mbokk ci ñaawteef ba sa borom tabaraka wa taala du la jéppi moo tax yàlla borom bi tabaraka wa taala ba mu waxee aljanna ji maa ngi ko préparal ñu ragal yàlla ñi ñen la wax daf ni alladina yunfiquuna fi sarraai wa darraai walkaadimina alxayda nee na àjjana ji ñi ma ko denceel mooy ñu ragal yàlla ña nga xam ni dañuy joxe seen alal te yàlla tax ci bu yombee ak ci bu mettee waaye nag ñuy wann seen mer tey jéggal mboolem ku leen ci nit ñi kon mbokkum jullit wann mer ak di jéggale ak di baale xéewal la gu mag ci kanamu borom bi tabaraka wa taala àjjana ju mag la ëllëg yowmal qiyaamati mbokkum jullit wann mer am solo lool ci àdduna ak yowm alqiyaama yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ci xadis boo xam ne ñu ngi ko jëlee ci muaz ibnu anas mu wax ni man kadama gaydan wa huwa yastatiu an yunafidahu dacaahu llahu yowma alqiyaamati ala ruusi alxalaa'iq xatta yuxayirahu min ayi lxuuri alcayni shaa yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na képp koo xam ne wann na ab meram fekk ba mu koy wan na kat mën na koo faj maanaam nit kii merloo na ko mu man koo faj waaye nag mu wan na ko ngir jéggale ngir baale nee na yowmal qiyaam bu ñëpp taxawee yàlla day woo ko kee doon wan na am meram ni ana diw diw moomee yëkkati loxoom yàlla ne ko xóorul ayni yii xoolal ku la ci neex nga jël lii laa lay faye kon bokkum jullit wan na mer lu baax la lu am solo la ndax day yëkkati see daraja ci àdduna yëkkati ko ëllëg yowmal qiyaamati xadis bi buxaari yi moo ko solo waaye nag mën na jàng ci xadis bi lu baree baree bari lu dul sax loolu ba ca njëkk mooy solo si nga xam ni nit ki war na koo jox boppam ci di laaj ay conseil ci ki ko tane ci wàllu diine ba sax ci wàllu àdduna képp koo xam ni moo la tane ci diine wala ci àdduna mën nga ko di ko laaj ay conseil ci lépp looy bëgg a def ak lépp looy bëgg a wax ndax mën na laa jëriñ lool waaye it kii ñuy laaj conseil war na góorgóorlu ba wax ki muy conseiller lu gàtt loo xam ne dana ko mën a jàpp te amal ko njariñ bañ kaa conseiller loo xam ne lu gudd lay doon ba mu koy fàtte léegoo lekk wala ba mu koy mën a bañ a jàpp waaye it mu bañ caa découragé saa bu ñëwee rek mu wax ko li koy li baax ci moom bokk na ci liñ ci mën a jàngit mooy nit ku ci nekk war naa am jikko ju rafet lool ci digganteem ak ay mbokkam waaye nag ci digganteem ak boroomam ak lépp lu muy wax ci kàddoom mbaa lu muy jëf ci ay jëfam bokk na ci liñ ci mën a jànge mooy kenn ku ci nekk war na sàmm lamiñam bu baax a baax a baax ci lépp loo xam ne da koy génne ci ay kaddu bokk na ci liñ ci mën a jànge mooy kenn ku ci nekk ku nekk war na mën di baal saa bu mënee fayu lii lañ ci jàngee maa ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal nu jàmm ak tawfiq defal ko mboolem jullit wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.